جل جرما من سلو جرما فأدى جرما الله جل أحد وهو سمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل له كفوا أحد وسرمدا بالملك والحمد انفرد أشهد أنه إله الواحد وأن أحمد رسول العابد سيدت أن الله رب الخلق وأن أحمد رسول الحق أصحاب الجنة هم فيها خالدون إليك يا خير البرية سلام خديمك الذي كفيت ملام صلى عليك أبدا ما سلام في الليل ولا ساب ربنا سلام في الليل ولا ساب ربنا سلام وانت مقام غد مقاما غد مقاما دونه كل مقام يا نور كل هابد سما وقام أنت الذي أخرجنا من السلام بك للنور من أباك بالكلام بصرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك زغيا ستمام أنت النبي والرسول والأمام بكن قياد سالين بسمام لك لدى رب الورى كل مرام لك به يا سيدي أسنى اقترام يا ربنا بكرمة العباس وامسة عليك في كل باز بكرمة الحسن والحسين جلي في دارين بنورين يرمة القاسم ثم تائري صف سوائري ومحد مائري برمة طيب إبراهيم أدم علي البسر والتكريما بجاي فاتمة أفتم نفسي عن كل ما يجرني لأبسي وبرخ شركا وزينب في نيات الأول والإجاب كل زمن وأمني دنيا وأخرى بالكرم بأم كلثوم ابني نخم بأوسن من عامر وارمي واقي مسروق تقبل كلمي وبربي وبجاي الأسود أبل استقامة وقوم أودي بعامر بن عبد الرحمن وبأبي مسلمة الخولاني جلي بالغفران وصادا والعلم والعمل والعبادة بلا سن البصر هب لي الورى والانسلاخ من هوائي والبلا شكوت أمري وذنب العسير لرب القدير الخفور يا النبي الشفيع القريب وضلي عليه بخير امتها وسلم سلام ونور جناني وزدني علوم وابلي نجاة وزدني هدى وأصلح أموري وزدني نعيم أبره سقامي وفرقهم ولا تديني خني مهلوكا ولا تفدحني بكون الله لنا ولمن للهدى يستقيم وصلي صلاة على المصطفى وسلم سلاما عليه يدوم وصلي صلاة على المصطفى وسلم سلاما من عليه يدوم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نوغي يسال سنوك توب ديكو جمالي سنو بروم ci sunu sunuy rëcc rëcc ci pas-pas ci kaddu ci jëf tey tuubaaleel bokki julit yépp tey ñaan sa borom bo nu jéggal nun ñëpp sunu bakkaar yu njëkk ak sunu bakkaar yu mujj di ñaan mu gàttandunu ak yërmandeem ak ndimbalam ak tawféexam te bañ a xool sunu manki ak sunu matadi ak sunu doyadi ameel ko cant gu yaatu lool goo xam ni lott nañ ci jooxe ko jooxe ga ca war waaye di ko ñaan rek fu nu toll mu di nu yiir te di nu yërëm te di nu dimbali te di nu kàttanal ba lépp luñ ca lott it mu mottali ko ci yërmandeem ak jagleelam ak ngëneelam waxtaan wi ñu jiitu waxtaan nañ ko ba noppi man damay sant mbooloo mi waaye liñ fi wax kenn mënta wax lu ko weesu kon daanaka sant rekk lañuy ñuy def liñ fi wax lépp nag jëmale ko ci man man xam naa sama bopp noo gën a doye di ci jaam ñi noo gën a doye ci taalibe yi yàlla nag mbaaxam moom ci jagleem rek ci la koy natt ku ko soob rek ngëneelam ku ko soob rek yërmandeem ku soob rek coobareem jooje nag a ah, moo ni ci dimbalil boppam ci coobareem waaye fu ñu toll nag yëg nañ sunu doyadi yëg nañ sunu xeebu lool yëg nañ yëg na nit lott nañ ci joxe cant ga war yëg nañ ci sunug lott it ci jaamu ko jaamu ko jawar yëg na nit sunug lott ci tënk suñuy cër kon yàlla mi nga xamante ni dara tëwu ko ci weeru màgg wu tedd wii yàlla na nu ci jéggal ba faw yàlla na nu ci yërëm ba faw yàlla na sëmbatal ngëneelam ci nun ba faw man day maa ngi yeesal sama tuubal ko tey tuubal jullit ñépp tey ñaan mu jéggal nu ñépp waaye maa ngi jéggalu jullit ñépp tey jéggal jullit ñépp ngir jëm yàlla sunu borom subhaanahu wa taala weer wi nag day mel ni mi ngi dem may na nu fekke daaw mayaat nu ci mbaaxam ak yërmandeem waaye du sunuy pexe wala lenn coobareem rekk la moo tax nu fekke ren ñu tàmbalee ko ci bismillaahi mu ngi cate yàlla nañ ko jeexal ci alhamdulillaahi daja ceeg ngërëmam ak njëggalam ak yërmandeem ju sax dàkk ba faw su ko defee li des ci weer wi nag ñu gën koo màng ci jàng alquran ci jàng xasiida ak tudd yàlla sunu borom ndax xamuñu kat ndax dana bokk ci coobareem ëllëg déwén fekk nu fi wala déet dañuy ñaan nag fekkit at yu bari te ànd ak wér ak le te fekkeen wi di rafet loolu mooy doon sunu ñaan waaye léeg-léeg nag waxtu wu ne coobare moom da koy feeñal ca na mu ko moom yàlla sunu borom banako sante julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñi andon ak moom jox sen jox alal ak sen deret ngir kawel batu deug ak la len ci fekk lepp ci mettit ci nakar ci tiis ci ci ay wax yu ñeen di wax ci jëf yu ñeen di jëf waye ñu muñ ko ngir kawel deug ngërëmal sunu borom yalla bu mu dañ du ko ci ñoom mukk di sant jambaram ga jëwlinam ga shaykhul khadim mi ñew yeesalat ngirum momi nga xamne ci la yaronte bi sallallahu alayhi wa sallama jaaroon ak sahaba yi tedd yi ñi ko jëk top momit ko tedd ki nono. na lu ne wax nañ ko lu ne ñaan do nak momit nono waaye yàgg yàgg ka nekk ci dëgg moom la ñu mujj di waxtaane ñaandoon nag moom ci dëgg yi la ñu mujj di waxtaane ña nekkoon ca geneen wet ga ca des seeni kàddu dana des waaye nag du jeexital fenn kon dëgg rek mooy li am solo képp ku ci nekkit na ngay muñ képp ku ci nekkit na ngay góorgóorlu di ñaanal sunu jàmbaar ji nu yar Maulana Cheikh Saleh yalna na yàlla dolli leeram te taas ci barkeem te taxaw njabootam gannaawam ka ca bopp ba di Cheikh Ahmadou Mbacké muy Serigne Cheikh moom Serigne Saalix di ñaanal kilifa ak yoon wépp muy Cheikh Mouhamadinil Mountakha yàlla féq aw fanam yokk ak wéram bay naalam ci lislaam ku ne xam na ci ak xëram ak dogoom ak yitteem yalla nako ci yalla fekk ak lu kawé njottam tan and ko moom ci gën ga rafetine anam di sant ni ci jotaay bi ñëpp waye di ñaanal kilifa diine yi ci rew mi yépp it wuñ kenn wuñ kenn waye ak fu ab julit man di nek ci bir rew mi ak ci bitim rew yalla nako di yalla yok ndam diko yok tawfiq ba mbooleem lo xamni yene nako ci suñ borom defal ko ci ndam ak barké defal ko ci lu kawé njottam kon ni waxe legi rek danaka ñu jitu kaddu yi rafetna na setna set na te lu bax mom lu bax rek la danaka lañ ci dolli du mën am solo mooy gor a góorgóorluwaat ci li dess ci wër bi rek gëna yokkat jangum alquran mi gëna yokkat lawradi gëna yokkat jangum qasida gi te gën ko tewul te gën ko setantal gën a tënkaat it suñuy cër adduna ku fi nekk dangay ngay bàyyi xel kër gi ni bindoo soo bàyyee xel kër gi ni mu bindoo yu bari du la jaaxal te yu bari da ko mën di muñ ngir jëm yàlla sunu borom adduna këru naqar la adduna këru coono la adduna këru jafañ-jafañ la boo xam ne jullit bi su ko déggee noonu xamee ko noonu dana tax lu dikk rek mu mën a muñ lu dikk yi mu mën a dëgërlu xam ne lépp day jàll lépp it day romb li am solo mooy foo toll saxal ci ak rafetal bu nit ñi dee rafetal rafetalal bu nit ñi dee ñaawal rafetalal te yàlla rekk a tax nit du rafetal mukk ba réccu ko mukk ci àdduna ñaawal lees di def xëy réccu ko waaye di rafetal ba xëy réccu ko déedéet bu dee yàlla rekk a tax kon maa ngi dénk sa bopp tey dénk bokki taalibe yépp tey dénk julit ñépp fi ma ne day man mooy sax ci ngirum yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ci ren keppaaru maulana sayxina al xadimi boole ci jéggale boole ci jëllale boole ci fas sax ci ak rafetal te di ko dénk ñépp te di ko digal ñépp te bëgg ñépp it sax ci te yàlla rek tax képp ku bëgg lu baax da ngay nangoo muñ coono da ngay nungoo mu nakar da ngay jéggale da ngay jëlélé da ngay wann baat da ngay neub mer te yalla rek tax suñ borom tag na lol ñu def la lola nakari, mba ñu wax la loola nakari nga neub ko ba kenn du yegni ci sa jëfine wala ci sa waxine waxes na la nakari wala jëfees na nakari moy waru ab julit nañ ko xel bu baax alquran suñ ko jàngee bam jeex tàkk lim ñuy nett li lépp mooy doxinu gaa yu baax yi muy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam fu seen kàddoo daanoo kàddu ya cay tege ñaare yu ñagas lay doon yu dëgër lay doon di jóge ca geneen wet waaye ñoom fiñ taxaw rek fi la ñuy taxaw te duñ ca jóg mukk ba keroog ni ñu wujjee seen borom ne leen wuutu ca yan ba it yanoo noona yan ba ba bañ ba bañ wuy ji ñoom itamit seen borom sunu jàmbaar gii di Maolana Seyxinal Xadim ku ne xam na ne bi mu dajek ay noonam lu ne teg nañ ko ko xeeti natt yu ne ja suñ borom jaarale ko ci ay noonam teg ko ko waaye ba mu ca jógee it yëg na la ko natt yu jural ci ak yëkkatiku ci ay ci ay tawféex ci ay ndam ba tax na mu jéggal leen ñoom ñëpp ndax xam na ni suñ borom kat farut noonam yooye waaye moom la far képp ku jóg ngir yàlla it ta yalla rek tax la kep ku la man di noonu it do am ndam ca lolu mukk ta yow sa ndam fo toll day gënd di yëkkatiku di gënd di set di gënd di leer ci mbaxu yalla ak yermande ak tawféexam motax ku bax ki sax ag ci di wax ni alamu man hasadani la yansarim wa bishru man yuhibbuni la yanxarim mettitu kima añane du dog mukk waye mbégtam kima soppit du dog mukk kon bëgg ku baax lu am solo la sa mbokkum julit sax wala sa mbokkum dëkkandoo sax soo ko añaanee rek dugg nga ci fitna ndax ñàkk nangu dogalub sunu borom la te ñàkk nangu dogalub suñu borom nag képp ku ko def da nga am fitnay àdduna waaye da nga amit fitnay àllaaxira ndax li lay jox fitnay àdduna mooy yàlla kooko moom waxtu ne da koy gën di di ko gën di yëkëti nga diko gis te do ca man dara yow it nag lu ne dang ko jëm ngir yëkëti ga yalla yëkëti mu jëmele ko suuf te yalla du def lola te yow lola dana la te jaamu yalla wala bo doon def luy nuru ak jaamu yalla it sunu borom du ko nangu ndax kañaan mom kenn benn xol bu mu nekk du borom nangu ko kon nun ñëpp nani ma maase di nangu dogalub sunu borom ci bépp mbindeef bu mëna doon boo gisee ku baax kiit ba tey di wax ni tawaafu man tawaafu kulli man alaya ankara hindal ilaahi wan nabi lan yushkara képp koo xamante ni weddi na ma bu demoon ba ca baytilaayil xaram mu di ko wërit suñ boroom du ko sant suñu boroom du ko gërëm kon li nu war nun ñépp mooy fu yàlla def ak mbaaxam nu bokk ko nangu te bokk ko gërëm ta yàlla rek tax ndax loolu kat da nga ca am nooflaay adduna waaye da nga ci am nooflaay bu àllaaxira te gëm yàlla kat du lenn lu may looy def nga seet ca yàlla waaye gëm yàlla ga ca gën a wér mooy nangu sunu borom nit ki gëm yàlla daraja ja ci gën a kawe mën nañoo wax ne mooy lu yàlla dogal nga gërëm ko ci mbindeef bu mu ko man dogale bu ni lu tax yàlla bul ni lu tax yàlla defal ko ko ndax nangam la sant wala nangam la mel wala lenn dafa am loolu moom yàlla ci coobareem rek la koy joxe nattu ko ci lenn coobareem rek la ku ko soob la koy jox te loolu wax ne innal fadla bi yadillaahi yu'tihi man yashaa coobareem jooju kum dal rek tawféex ja dal na ca yow ak noo mën a mel boo yéesee bu mel ni manit tawféex ja dajeeg yow it alhamdulilahi rabbil alamina wallahu yaxtasu bi rahmatihi man yashaa yërmandeem it ku ko soob rek la koy jagleel boo yéesoon ba mel ni manit bu la jagleelee yërmandeem it alhamdulilahi rabbil alamina kon nag ngëneelal sunu borom ak yërmande suñu borom yàlla nanu ko suñu borom bokk jagleen ñun ñëpp yàlla bu nu yàlla nattoo it nu añaane benn jullit bu mu mën di doon ci kaw suuf waxuma la ak nag ko yàlla yëkkati ndax yàlla kat lépp lu mu a ma yëkkati bindeef yi yépp bu ñu àndoon ngir loolu jëm suuf duñ ca man lu toll ni dee dey we waaye lu mu tëral ci suuf it bu ñëpp ànd ak bëgg ko yëkkati yëkkati it loola ko man ci lu toll dee dee we kon yàlla mooy yëkkatee yàlla mooy suufeel yàlla mooy terale yàlla sunu borom mooy joxe yàlla sunu borom mooy xañe benn mbindeef joxe wut képp koo xamante ni jàpp nga ni kenn nay joxe danga ne ci fitna képp koo xamante ni jàpp nga ni kenn nay xañe da nekk ci fitna yàlla rek moo mën a xañe yàlla rek moo mën a joxe kon nañu dalal sunuy xel te jublu yàlla mi nga xamante ni moo tëye adduna tëye àllaaxira lu ko ci soob ci cër mu di ko jox ku ko soob nu jublu yàlla moom moomee tey toroxlu ci moom te di ko ñaan xéewalam yi nga xam ne bindee fii rek a tax ñu di ko ca ñaan la moo Mawlaana Cheikh Abdoul Ahad waxoon rek yàlla moom gannaaw li mu yor ci xéewal du jeex man duma ko laaj lu tuut kon kenn ku nekk ci noonu fu ab laajam yam rek fa la suñ borom di yem ak yow kenn ku ci nekk it fa yitteem toll it fa la ko suñ borom di fekk xewale suñ borom yi bindee fi yépp xaj nañ ci jurut soxorante jurut añaanante jurut yàqante jurut lenn te yàlla defal nit ab jaamam ngëneelam day nga nangu ko yàlla dan la ca gërëm te amaana ngëneelam loolee mu defal kooke it mu xëy defal la sax lu ko ëpp yow ci sa wàllu bopp adduna it dafa tëradi te guddub tànk lool te loolu julit bi ne war na koy bàyyi xel li wax lu ne li may wax waxtu wu ne nit ki réeri sëg mujj rek war na laa doy xalaat war na laa doy njaqare war na laa doy tiitaange mooy tax fu ñu toll nañuy góor góorlu di toroxlu tey farlu te jëmm yàlla rek a tax gannaaw man sant rek laa bëggoon a def ci ñu doon jiital kàddu yi yi ñu doon waxtaan xëy na ñëpput ay laaj yu ñu ma waxoon bu ñëwee ci laaj yooyu liñ ci war a toftal fan yi ci gannaaw xëy na li ma génnoon moo tax daje jotu fee am waaye yàlla dogal na eh, ndaw yi Cheikh Mouhamadul Mountakha yónnee woon fii ñu woowoon ma téléphone ngir liggéey bi nga xam ne noo koy taxawu nekkal ko fii ci kër Mbaye ci kër sëriñ Touba gi ak ci taalibe yi ñu woo ñi nga xamante ni ñooy taxawu gox yooyu yëpp kër Serigne Touba yi ci Sénégal gépp xëy na booba amoon naa ngàntal dem ca waaye yónnee woon naa ci it ay ndaw ndawee it demoon nañ fekke ji jataay ba loolu lépp it lañ ca jublu mooy gën a nosewaat kër sëriñ Touba yi. ñu xam lan mooy seen rôle lan mooy seen liggéey mooy jàngale jàngaleem sëriñ tuuba jàngale lislaam ci ci ci ñi ko sëriñ tuuba jàngalee defe naa ni waxoon naa ko sëñ nganjaay ak sëñ pap sek sëñ cheikh fall sëñ abdou ak cheikh yahya mi gannaaw bi ñu ci bari dañoo amoon gàntal dem ak sëñ xaasim kan waaye nag am nañu ca jotoon a dem waaye lañ fa jële it mooy ñun ñëpp nu gën a takkuwaat góor góorluwaat benn la sunu bopp nekk benn xay na jàpp nañ ni it ñi nga xamante ni ñoo nekk ci gox yi nekkal fa sëriñ bi it am na ay kayit yu ñu di jox wala yu ko nuru ngir ñu gën di mën di taxaw taalibe yi ci fànn yëpp ak ci wet gu mën di doon waaye la ci li ci gën a yitteel ca ndajama mooy lii ma wax rek mooy fas yéene daal kër kër sëriñ bi di dund di dund yit ci lislaam ci njàngaleem Serigne Touba Xaadimu Rasuul lool it ma ne woon dinañ leen ko jot ni xëy na mën naa am bu ëllëgee ñu amaat ci yeneen i jataay laaj yi sa ki am laaj yi ci laaj nag bu ñu ko laajee ba noppi nag su ko defee liñ ci war a toftal rek ñu dolli ko ci insha allah bismillah jërëjëf Mbacke mbokk mi dafay laaj mu ne ndax am na wuute ci himma ak xilmu laduni himma day bu dee sama dégg may ma defe naa ne yite, yitte yitte nak bu dajeeg tawfiq lu munta may ab jam ci boromam rek amut ndax jam yu jog yépp jëm ci yalla la leen ci moy yitte ju kawe ak pas-pas bu sel ta yalla rek lal ko yitte moy sa yitte jépp nga jëmele ko ci lenn ne man day nangam la bëgg duma tëdd te awmako wala duma toog te awma ko wala du ma génn àdduna te awma ko loolee boo xëyee ci ngay xëy su bëccëgee ci ngay bëccëgu su ngoonee ci ngay gont su guddee ci ngay fanaan def ca sa yitte jëpp loolu mbir mu man di doon nit ki bu ca defee yitteem jëpp suñ boroom mën na ko ko defal mbir mu man di doon waaye it yitte nag su ko nit yàlla yi wax mooy yittewoo am ngërëmal yàlla mooy yittewoo àgg ci yàlla lii sëñ Baara wax léegi man xaraxal baaba walla ja wala ku yàgg fëgg ubbilis la kon nag itte ju kawe te sell te yàlla rek lal ko moo daan àggale nit ñi ci yàlla nun nag dañoo dem ba jamono bii nu toll kenn ci nun jàpp na ni àgg ci yàlla moom mënatut am walla am ab cër ci yàlla moom mënatut am te yàlla mi doon joxe cër yi de mi ngi fi ba tey te ay bindee fi la ko doon jox kem nun kon li manqué ci nun mooy yitte jooju yi nga xamante ni wax na ko ku futtiku ci àdduna ba set jublu àllaaxeere jublu gu wér te muy dëgg ci yow te dajee bunt suñu borom mën na laa àggale fa góor yàlla ya àggoon ci mbaaxam ak yërmandeem ak tawféexam ki jàpp ni nag béréb sàngam mënuy su ca àgg kookoom du ci àgg mukk ku jàpp ni nangam mënuy su ko amit ñaare du ko am mukk ku jàpp ne nangam wëree su koo xamit ñaare du ko xam mukk ku jàpp ne nangam wëree su koo gisit ñaare du ko gis mukk waaye lay maandu ci ab jullit mooy xawma mooy dégguma mooy gisuma mooy àgguma loolu moom jullit bu ne sañ na ko la nga xamut man nga ne man day ma loola la nga déggut man nga ne man day dégguma loola la nga amut man nga ne man day awma loola la nga mënutit man nga ne man day mënuma loola waaye nag kenn mënul nàngam ak kenn xamut nàngam ak kenn gisul nàngam lolé ab jullit du ko def ndax lolou bokku ci ak mando kon yitte buñ koy wax ci nit yalla yi moy sa yitte jëm ci yalla te nga and akuk dogo do depp do taxaw do geestu ak lu la mëna a fekk ci yoon wi du la tax depp luñ la ci man di wax du la tax depp lo man di dajali du la tax depp sa yitte nit ñepp di la won gannaaw ak ñu di la jublu ñoy yam ci yow kep ñu di la tag ak ñu di la ngañ ñoy yam ci yow kep nga and ci ak ñepp ak nga nekk yow dong ñoo yem ca yow képp yow daal sa yitte lenn la mooy yàlla sa borom mi la bind andi fi bàyyile la fi te di la fi jële te di la laajaat ëllëg te kenn ko nekk kat yow dong yaay lay ak sam ndeyjoor ak say jëf kon jëf yi kenn daanaka mëtt a dugg ndax ku ne sa jëf du la rëcc sa jëf du la moy wa an laysa lil insaani illa ma sahaa wa anna sahyahu sawfa yuraa kon danaka julit bi su xamé lolu du dugg mukk ci mbir ci jëfi ben bindeef bu mëna doon gannaaw yalla mi nga xamante no kaddo moy kaddu gu deggu di kaddu gu wir te la yukhliful mihad te ab deelam du dañ mukk lim wax dar du ci jox kenn ku nek lum jëf da nga lay ak sam jor fekk fa sey jëf mo moom ko ci jëfum njëru dugg ndax bo duggé ci ay jëfum gat yang koy gàddul ay ñaaw yaa yang koy jox sa yiw boromam rek yàgg-yàgg su dee man mii toog la lu ma mën di jëf yàgg-yàgg danaa laytaay ak sam te danaa ko fekk yàgg-yàgg danaa dajeeg sama borom ba jàpp ni man dong la bindoon te su boobaa man ak moom rek lay doon yow ma ca bëgg a dugg su boobaa doo ñu ñetteel kon ba ma ak moom rek kon itte mooy sa lépp nga jëmale ko ci yàlla te deseloo dara te bañoo ca dara wutoo ko la ca topp wutoo ko la ca ŋàññ wutoo ko la ca tagg loolu mooy itte xel mu la dund yi nag yitte jooju dana ko joxe mooy xam-xam boo xam ne yàlla dana ko def ci nit ki te du ko jaarale ci kenn mooy xam boo xam ne yàlla dana ko def ci nit ki te du ko jaarale ci kenn mën na koo def ci nit te jaarale ko ci kenn kookee mu ko def te jaaraliwu ko ci kenn nit kooku mën na koo defaa defaat ci ay nit xam-xam la boo xamante ni bii su ko jàng ci ab téere wa xallamnaahu min ladunna xilma loolu suñ borom moo ko wax ci ab jaamam xamal naa ko xam-xam bu koo ci noonu xam-xam yooyu nag ñaare nekkul yees di man di waxtaane ndax xel yëpp ëggu ca xel yëpp it ca ndax nitu yàlla yu baree baree bari fa ñuy waxee ak fa ñuy jëfe sama maas gii seenu dégg du ca àgg seenu xam du ca àgg su ko defee wedd da leen ca yomb nanga munta am nanga munta am nanga munta am ca ngay dëkk te fekk yow la ngay wax xamoo ca dara su ko defee loolu nag mooy jur fitna ci nit ki waaye xel xilmul du yi mooy xam-xam bu bàyyikoo ca sunu boroom jëm ci ñëw ci jaam bi te suñ borom jaaree wu ko ci kenn yooyu yëpp mën na ca joxe ay misaal fi mu ne nit mën naa tëdd guddi gént li nga gént nga xëy gis ko na ko gént xam nga loolu suñ borom jaaree ko ci kenn te xam-xam la nit mën naa toog am yëg-yëg am na ñoo xam dañuy am yëg-yëg. yeg yeg la tok am yeg yeg yeg yeg buñ am man nga tok am yeg yeg ni diiw nga dik dikk nga toog tuuti gis diiw momé lolé seen yeg yeg da am nañu ñooñu seen yeg yëg na fofu am nañu ñooñu géntu leer la gent yo xamanteni da fay set wicc lañ gentu ñu dem ba jamono ñu gis ko tok na nit mu ne beur beurep sangam day gis na ko wéri at beurep ba doora taxaw yewuma ca gis beurep ba ma gisat ca beurep ba ñuy fak akat def ay kër man ne lii lu mu doon ñu ne ma lii lépp ay kër lay doon te kooku gis na loolu fanweeri at loola door a dikk kon kooku lu ko suñu borom xamaloon la waaye xilmu la dund yi gën naa kawe loolu ndax day buntu bu yaatoo yaatoo yaato yaatu boo xamante ni suñ ci doon waxtaan daanaka xawes na cee mën a fanaan day mel ni xadir ak Moussa it ba tey ndax ñoom léeg-léeg ñu jëfee foo xamante ni li ñuy jëf yow doo ko xam ñoom nag dana leer nañ ci ñoom leerin wu leer wu gën a leer leeralu jant bi te day du ànd ak sikk it nekkut xam-xam boo xam ne nit ki mën na koo xam muy ànd ak sikk déedéet nanguwut sikk xam nga téere moom mën nga caa am sax looy sikki sàkk wér naag wéru tët fii la jógee faa la yu baree bari waaye nag dafa am xeeti xam-xam yoo xamante ni kim nekk ci moom nanguwut sikk sàkk yaqiin lay am ca la du nangu sikk du doon ay gént du doon lu may xayaal du doon lu may njort du doon lu muy foog bu ne woon kii diw la te muy ko mu xam moom adduna bépp maaseraan ko kii du diw day xam ni nit ñi ñoo xamut waaye moom li muy wax moom lu xam la ki xam loolu it bu ca doog bu doon lu muy wax la wala lu muy jëf la nit ñëpp di ko ca ŋàññi wala nit ñëpp di ko ca gërëm ñoo yam ci moom képp ndax du ci am yëg-yëg digganteem ak boromam rek lay doon moom moom waxtu wu ne digganteem ak boromam rek lay xool bu ko wóoree ni moom mi ngi jokkoo ak boromam te mi ngi ànd ak boromam amatut keneen ku muy bàyyi xel amatut leneen lu muy bàyyi xel ndax nit ñi ci des ay bindeef rek lañ yàlla moom moo bind bindeef yépp bind li lépp lu mu doon muy nit ak ginne ak yeneen yi ci des yépp yàlla moo ko bind yàlla moom nag boo xasee déggoog moom keneen mënu ko bàyyi xel ku dul yàlla sunu borom subhanahu wa taala kon himma ju kawe yitte ju kawe dana tax nit ki mën a àgg ci xilmu ladunni yi yàlla dana ko jox ab jam te du ko jaarale ci kenn ab jam it dana ko jele ci moromum jamam bu matale sart yay tax mu man caa jot jere jef kitam kita mune ndax xasida yi dafa doon loo xam rek jëm ji moy li ci am solo jëmi xasida bi ñukay koy tee di ko barkeeloo wala ndax mbind mi nek ci biram moy li ci ëpp solo qasida suñ koy wax mi ngi melni ni nga ni alquranul karim xam nga alquran baadi yep harab la lañ yah bi yep mi ngi fi won dara jugu fi waye nak leer la li tax ñuy wax yuqub alquran leer la gu bayiko ci suñu borom mu wacc ko ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam kon du yahberek. bi rek bu alquran yax beeg lépp la wacce di leeruk sunu borom subhanahu wa taala qasida yuq gi leer la gu bayiko ci turu yalla bayiko ci alquran so koy jang te diko tewlu te diko setantal dana fóot sa xel dana fóot sa xol dana sa roh alquran it noonu kon ñom ñep seen seen balawai leeru sunu borom la du tay geene rek yah bi rek la dedet ndax yahub arab mom mi ngi fi won naka jek xasida goo mën di jël baat boo ci fekk mën ngaa dem ci beneen téere fekk ko ca booy mën ngaa dem ci maqamatul hariri mën ngaa dem ci shu'ara mën ngaa dem ci beneen téere yooyu yëpp nga fekk ko ca waaye nag ni ñu ko dajalee ak ki ko dajale fa mu toll ci yàlla ak ruuxam fa mu toll ci boromam subhanahu wa taala kookee loolee mu dajale foofee wax ko tënk ko ci tur yàlla ak alxuraan loola leer sunu borom la nga xam ne soo koy jàng dana fóot sa xol dana fóot sa xel dana fóot sa nit ki nag lépp lu muy def lay xamal ni mi ngi koy jariñ wala ma koy cay lépp loolu moo koy yëgal boppam waaye kenn du ko ko wax fii ne ki jàng xasiida la koy yëgloo màggaayu xasiida ak dara darajee xasiida ci jikkoom ju rafet ci lay feeñ ndax yàlla moom nit ki mi ngi koy yëge ci jikkoo kiy dox jëm ci yàlla bul ko natt ci sab sëriñ bul ko natt ci say àndandoo bul ko natt ci sab xarit nattal ci sa bopp nit ci boppam lay natt ab doxam ndax xol la te xol jàmbur éggoo ca mënoo koo yër mënoo koo xam sab xol nag yow xam nga nit ku ne xam na la ko yàlla jaral xam na it fa xolam toll ci rëy wala ci iñaan wala ci naw jëf wala ci njistal wala kuy wax lu du dëgg la wala danay dox di rambaaj wala danay def lu mu def ci ay cëram loolu kenn ku ci nekk yàlla la gën a xam sa bopp waaye ku dul yàlla yaa ko gën a xam sa bopp mooy tax nit ki la lay boy jang alquran wala ngay jang qasida wala ngay tuddu yalla yoy la muy moy foot xol waaye bu bo dekke jang lola di ni man maa ngi amee dara ci greuy maa ngi amee dara ci kañaan maa ngi amee dara ci ngistal maa ngi amee dara ci wax lu du dëgg maa ngi amee dara ci rambaaj su boobaa nak da ngay xolaat sa bop nak bu baax xam lan kon yow li nekk ci yow deñu nga fexé ba xam lola su lola tinki da nga ci sa bop ak da nga yëg ci sa bopp yéene ñëpp jàmm da nga yëg ci sa bopp tënk say cër da nga yëg ci sa bopp jikkoy mbaax yi tax ñuy war di jàng alxuraan yi tax ñuy war di jàng xasida yi tax ñuy tudd yàlla sunu borom subhanahu wa taala hmm. jërëjëf mbàkke ba tey mu ne ki soxna su tedd si ñu naan ko soxna fatima bu cordo mu ne dafa nekkoon taalibeb cheychaaw ibnu arabi mune koku naka la don joxe ndigal suratul fatiha ngir mu dem diko doxal ay mission te mom sax danul won déplacer wu. xam nga leg leg ñom seeni wax du neex firi ci ko xamni ndongal tuuti lu doye di lu melni man la ndax kalam lawliyaa manam kalamuhum isadaha isaa daxaaka yaa faqul kama qala dakki abdul wadud kalaam al awliyaa yi lastu afhamu li annani ana ana wa hum humo seeni jëf léeg-léeg ñu jëf jëfi nit léeg-léeg duñ jëf jëfi nit léeg-léeg ñu wax waxi nit léeg-léeg duñ wax waxi nit gannaaw nag yow nekkoo ca seen biir nekkoo ca sàppe sañ nekk dangay maandu ci seeni jëf maandu ci seeni wax ndax buñ nee la kii faatihatul kitaab man nga ko jàng tari man nga koo gis ci ab téere suñu nee ne diw da koy yónni muy dem ak a dikk gisoo mu yor ay tànk gisoo mu yor ay loxo gisoo mu yori nopp loolu xam nga dalay jaaxal moo tax ñu ne aqwaluhum tutwa wala tunsir seeni wax des koy taxañ soo ci amutub dégg rek bàyyee leen seeni jëfit boo ci amutub dégg bàyyee leen seeni wax boo ci amutub dégg bàyyee leen loola ñoom ñoo koy xam ak ña egg fañ yegg ci yàlla ñoom ñooy xam loola nun ñi ko xamul nag nan am yitte jéem a dox jëm ci yàlla xëy na bu ñu dajeek borom tawfiq mën nañoo dimbali ba ñoom ñu ba loolee ñuy wax ñu man di ca xam dara ndax li ko baax ki wax ni secret laa ilaha illa géej gu xóota xóota xóota xóota xóota xóot géej gu xóot goo gii mu ni nees lañ koy xame mu ni su ko bind ci téere maanaam màgg na màggin woo xam ne mu ni su ko bind ci téere lan lañ cay jote mooy joxe sa bopp ba mat sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk te dese woo dara ci sa bopp ci ku ko yàlla def ci moom di jihaat ak sa bakkan mënoo koo am ci werante mënoo koo am ci ŋaayoo mënoo koo xam ci mënoo koo xamit ci xeeb ku la raw kon joxe sa bopp ba mat sëkk mooy tax nga mën a xam ca sekkare yooyu dara te sekkare yooyu soo cay jotit sa ruu day set kii la koy jox day wax ci làmmiñam ngay dégg ci sam nopp yàgg moom ak yàlla rek waaye nekkul loo xamante ni lu ñuy saam ci mbedd la wala lu ñuy wax ci micro la ca kaw la déedéet dafa am sekkar yoo xam ne ku ko bëgg a xam day dox doxinu ku bëgg a xam loola muy ku ñuy tarbiya di ko yar ci yoonu yàlla ba bu yeggee ci ñut yàlla yi wax dara lañ wax mu man caa am ak dégg boo xamante dégg gu set dégg gu leer moom lay doon kon soxna soo si li wax loolu sekkare la am na ci sekkare yooyu nag ne su koo wiññil noonu waaye nag loolu sëriñ bi wax daal seen wax bu la jaaxalee la xam Abdul Wadud waxoon daal waxee ko maandu la gannaaw ma nekkuma ca seen biir du ma jéem a xam la ñuy wax damay xam ne man daal jaam bu doy di laa bu xeebu laa fi ma war a taxaw ma taxaw fi ñoom nag ma bàyyi leen ak seen jëf ak seen boroom ak seeni wax ak seen borom. Hmm. jërëjëf Mbacke kii mu ne dafa dégg ñuy wax ne tirailleurs yi tirailleurs sénégalais yi tirailleurs sax africain lañ war a wax parce que ñoom ñëpp Afrique lañ bàyyeekoo bi nga xam ne Hitler dugg na France ba àgg Arc de Triomphe euh, ñoom ñu gersu ne nañ dem ci réew yi nga xam ne ñoo leen nootoon ngir jël fa ay nit ñu ñëw dimbale leen ñoom lañ naan tirailleurs yi mu ne dafa dégg ne nag tirailleurs yooyu africain yi te biñ ñibbisee ñu ñu ñu teg leen fii camp yi ñuy xaar ñu fay leen seen xaalis France yónnee ñu bombardé leen décembre 44 muy camp Thiaroye bi mu ne nag dafa dégg ne tirailleurs yooyu am na ci ñoo xam ne su guddee dañuy ñëw Sénégal bu bët ñu delluwaat France <laughs> mu ne loolu naka la mën a nekkee. Ah, loolu de xaar na koy laaj xam-xamum séeréer la <laughs> waaye loolu moom man sama kumpa man ndax man loola fekkewu ma ko fekkewu ma guerre ba booba juddoogu ma xaw ma it nu mu doon def bay dikk xaw ma nu mu doon def bay delloo waaye yaakaar naa ne daal sama xelum bopp man suma demone fofé balé di tak ma man fa jogé ñew fi sama kër caaxaan du ma delloo de xaw nak ñom luñu doon def bay dik xaw nak ñom luñu doon def bay dem lool dal man amna ci kumpa wax dëgg yalla waaw ah, ok ku bëggee bëggee dégg dëgg dal amna ci kumpa waye nak ci sama ndort dal ku mëna jogé fofa fa balé takké nga ñew ba ci sa biir kër gën la jëlé won té neexul won nga man fa fanaan si ak sa njaboot damay def ni da nga nan fa xi te dootoo fa jóge naan damay delluwaat ci fobalee tàkke kat raawate na nga nga teg ci lii nga ci teg bañ demee ba dikk it fayeesu leen lu may rey leen bañ jeex loolu kat dara jëru ko waaw ah, yàlla na yàlla dolli ci ñoom njëggal ak yërmande te taxaw seen njaboot te yokk leen tawféexam li ma zaahiran wa baatinan hmm. amin Mbacke amin Mbacke kii tam dafay laaj mu ne naka nga jàngatee waxu philosophe bi wax ne xamal sa bopp bala ngay xam yalla mu ne connais-toi toi-même et tu connaîtras ton Seigneur xamal sa bop ba nopi soko defé di nga xam sunu borom lolu waxu yonent bi la lolu waxu yonent bi amin ya rabbal xal lolu waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom ma wax ne ku xam bopam xam yàlla loolu nag ba tey da fay xam-xam bu xoto xoto xoto xoto ndax yow yaay kan nit war na laaj mom moy kan man may kan jooju nak man nga ci yendu man nga ci fanan ndax do ma dafa xoto boo xoolee scientifique yi ba tey jii fi mu ne am na loo xamante ni xamaguñ ko ci doomu aadama bañ tàmbalee jàngat doomu aadama ba tey am na ci loo xamante ni seen kumpa la kon nit ki su xamee dëgg dëgg boppam dana xam yàlla mi ko amal waaw ah, loola nag xam-xam bu xóot la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ni suñ borom bind na aadama ci meloom loolu it ba tey xam-xam bu xóot la boo yeggee ci insaanul kaamil danga ko ca fekk yooyu yëpp dafay xeeti xam-xam yoo xamante ni nit ki il faut que da ngay dugg ca faculté ba mu nekk nga door a mën a xam loolu mi ngi mel ni jàng say yi mi ngeen di jàng xeetu xam-xam bu ne dafa am fu ñu koy jàngalee soo ko bëggee xam dangay dem foofa fam ne nga dem fa dal baa tàmbali ba ba ngay àgg ca niveau ba gën a kawe ca xeeti xam-xam booba waaye doonut ba tey rek loo xamante ni des koy laaj ñii rek ñu daal la cay tontu rek rawatina ku mel ni man nga xamante ni xam-xam bu néew a néew a néew a néew a néew moom la waye lima xam dal moy xam-xam bu man di don fam fam ne dang fay dem te sart yi fi wuti nga wuti ko ko soko amé non da nga xam lum don boko boo dang déggatee da ca mën xam-xam-xam bu leer ba dootul ci duggati ci ay werante ak nenañu ak dégg ak fogna ak yu mel jere jeuf Mbacke ki tam ndax ci biir julli daf ci am jotaay bo xamni nit ki day dem sidratul muntaha mune ndax dafa yaakaaroon sidratul muntaha dafa nekk ci juróom-ñaareelu asamaan mu ne nit ki kon ci biir julli bu fekkee li ñu wax ak moom ni mu ko déggee noonu la naka la nit ki di mën a ci sidratul muntaha xam nga roo moom amul distance roo dara mënu koo tënk nit ki nga xamante ni roo xam set na wicc pays suñu borom yëpp mën na caa dem ndax jëmm ji moom dafa am fu mu mën a yem ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy riñaan ànd naa ko yaramam ci lu bir waaye am na foofu ba mu fa yeggee da ngay mën wax ne ruhaniya moom la nekk kon sidratul muntaha am na jëmm yooyu seen roo mën nañoo nekk ci biir julli seen dem foofa xam nga mën ngaa nekk fii sam xel nekk Paris sam xel nekk Londres sam sam xel nekk Washington sam xel nekk New York bu dee béréb yoo ma soo dem la sam xel fi nga toog nii rek mën naa war yooyu yëpp ci benn seconde wala ñaari seconde xel xel nag boo ko xoolee dafa xaw a lëkkaloo ak ruux ci googu fànn mooy tax nit ki mën nay julli ruuxam dem fa gën a sori ci pays suñu borom yi subhanahu wa taala loolu nag ak ña ca àgg ak ña ko yëg ak ña ko xam yàlla yàlla boole ca jaam ñooñee ci mbaaxam ci yërmaa dem ci tawfee xam ak suturaam jërëjëf mbake ki tam mune ndax nyan, euh, ñaan ndax invocation la wax mën na doon ñaan mën na doon tudd yàlla jël jëm nit ki ndax ñaan ba ñaan gi doon jëm mu di gis wala ndax nit ki mën tuddi yalla ba tuddi yalla bi doon jëm mu diko gis ñaan de des koy def ba li nga ñaan nga xam ni lii ma doon ñaan suñ borom may na ma xam fo bëgg yegg la mo xam lo bëgg am la mo xam lo bëgg xam la mo xam lo bëgg yegg la yoy yeb nit ki dina ko ñaan mo xam lo bëgg am la nit ki dana ko ñaan ba dem ba yekko nit ki dana ko ñaan ba yalla xamal ko ko nit ki dana ko ñaan ba yalla may ko ko nit ki dana ko ñaan mu lamb daj ko xol ko man ngay man ngay ñaan suñu borom mu ubbi sam xel ci xam-xam yalla ubbi la ba nga sori ci xam-xam lol man ngay ñaan suñu borom keur mu may la ko xam nga keur boko lambe dekk man ngay ñaan suñu borom auto mu may la ko man ngay ñaan suñu borom leneen mu may la ko man ngay ñaan suñu borom xilmu la duni bi ñu doon waxe nga boole ci yitte mu defal la ci tawfiix nga xam ko lum du kon ñaan man na dem ba nek jëm joy gis li nga doon ñaan yalla nga xam ni lii suñu borom may na mako ko muy jëm nga di ko gis lu mana a doon rek nit ki di ko bëgg mën na koy ñaan yàlla ba yàlla xamal ko ko wala ba yàlla may ko ko ba yàlla jox ko ko mu xam ne lii lu mu doon ñaan lu mu doon ñaan yàlla la suñ borom may na ko ko ci coobareem ak ci mbaaxam ak ci yërmandeem ak tawfeexam ak suturaam. jërëjëf Mbacke ki tam mu ne ndax gént di naaw loolu naka nga ko koy interpréter. gént nit ku ne nit ñi dañoo dañoo wuute ay ay ay ay ay mbir. ñetti nit mën nañoo gént génn gént te genn kenn ku ci nekk ak géntam la muy firi du bokk ak la géntug moroom ma di firi loolu dafay am waaye génti naaw moom lu baax a baax a baax a baax la gént di naaw ci jaww yi jëm jëm kaw loolu lu baax la waaw ak yëkkatiku la ak dolliku la ak roobu yéegit ci sunu borom la lu baax la genti yi naaw lu baax a baax la yalla nuko yalla di taw féexal jere jeuf mbake ki tam mune day laaj njëriñu wirdul makhuz ak fathul baax te lan motax ñu upp ci defatuñ wirdul hmm, de sama kumpala la yepp ci murid li tax defuñu ko sama kumpala. xamna dal sama sang ba daana def yaari yepp man mii moo ma jox weddu maa xuus muy sëriñ Salim moo ma jox ma sàbbahaatul xasra ma di ko wax fàttul baax yi mu sàbbahaatul xasra boobu bii sëriñ bi moo ko joxoon téere lu yàgg la mu ngi ci iya ulumu diin boo ci demee danga ko ci fekk waaye la cay ay ngëneel lépp suñ la ko waxee daanaka doo bëgg jàppati wenn wer lu wudut moom dañoo wax ni sax moom boo ko jàppee doy na weneen wudut moom weneen woo mën ni jàpp nag du tax mu doy waris moom waaye boo ko xasee jàpp mu doy na waris wudut moom dañ caa wax ni soo koy def subaa ngoon diisu la bindal bàkkaar diisu la bindal bàkkaar loo xam ne boo koy def suba ak ngoon diisu la bindal bàkkaar moom mooy mu sabaxaatul xasra mu ngi ci téere seex soxay bu mbakki weddu maa ko sunu borom moo ko joxe sëriñ Touba jaarale ko ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi doon ko joxe damaa xamul nag nun taalibe yi ñoo amul yitte di ko laaj suñuy sëriñ wala su suñuy sëriñ ñoo amul ndigalul jox na ko loolu am naa ci kumpa waaye man daal li ma xam moo di sama sëriñ jox na ma ko ma di ko def muy weddu maaxoos ak mu sabbaatul xadara sëriñ bi digle na ko it nag ñu di ko def waaw sëriñ bi sëriñ Touba digle na it ñu di ko def waaw ndax nit ki dafa war di tudd yàlla tudd yàlla mooy sori nit ki seytaane nit ki budu tuddu yalla yàlla daf koy jege tuddu yalla moy fot xol tuddu yalla moy fot xel tuddu yalla moy fot ro tuddu yalla moy tax nit ki réeg añaan ak naw jëf ak ngistal yu bare bare bare di set ci yow yoy moy li galam ko nit ki ba du mana ag ci yalla ba ro xam du mën joko ak boromam kon nit ki dafa war di saxal tuddu yalla moy ngannaay li nga xamanteni moy dox suñu digënté ak shaytané kon fu ñu toll nañuy góorgóorlu fu ñu toll ci di tudd yàlla te di ko sellal te jëm yàlla sunu borom rekk tax jërëjëf Mbacke laaj bu mujj bi mu ne ndax bu nitu yàlla di wax kaaba ndax dañuy misaal xeer wu ñuul wi nekk màkka wala ndax dafa am beneen kaaba boo xam ne du lu ñuy da lu ñuy làmb di ko daj kaaba spirituel kaaba spirituel daal mooy ga ca baytillaahil haram ñi di ko wër loolu mooy kaxbatul mubaaraka mooy ga ca baytillaahil haram yàlla digal jullit ñi ñi di ko wër ku dem màkka wër ko juróom-ñaari yoon loolu mooy kaaba gi nitu yàlla yi nag léeg ñoom lañuy wax léeg-léeg ñu ni kaaba gi jële nañ ko béréb sàngam indi ko béréb sàngam wala nitu yàlla ni kaaba gi kat bu njëkk guddi laa ko daan wër waaye léegi moom may wër loola ba tey day dugg ci li ma waxoon léegi rek seeni wax daal des koy taxañ waaye di su ko lemmi ndax soo ko bëggee lemmi nen noo koy mën a lemmee doo ko xam ndax ki kaaba gi jëlee nañ ko béréb sàngam indi ko béréb sàngam te boo demee fekk kaaba ga fam nekk looy wax kon loola ñoom ñoo xam la ñuy wax ñoom li Abdul Wadud moom waxoon rek ñoom daal seeni wax nañ leen ko bàyyee te nun fi ñu war a taxaw ñu taxaw fi fi ñu war a yamit ñu yam fi loolu mooy warugaru ab taalibe nitu yàlla yi la wax ak lañuy jëf bu ca suñ yoon nekk waaye nag yoon wañ ñu teg te yëg ci suñ bopp di ko dund di ko jariñ di ca yëg suñuy jikko ni muy defaroo suñuy ayib ni muy rote loolee nañ ca yem te téye ko te jàpp ko te maandu ca la ca des hmm. kon noo ngi sant jullit ñëpp di gërëm jullit ñëpp di ñaan suñu boroom nangul nu sunu koor te fulal nu ko te laqal nu ko it fu yàq yeggut di ñaan lim ci dayli ci njëggal ak yërmaande ak ngërëmam it sunu borom bokk nu ko defal nun ñëpp di sant ñi nga xamante ni ñoo nekk ci jumaa ji di ci liggéey yi di ñaanal it di yeesal sunu ñaan ci imaam Serigne Sahidou la yàlla na ko yàlla dolli yërmaande fa mu tëdd te yàlla taxaw ak njabootam gannaawam ñii nga xamante ni ñun ñu ko fi wuutu it mu ci muy man mii muy sëriñ Moustapha mii ak sëñ Abdoulaye Darame ak sëñ Fallou ak mboolem ñu sëñ Si ak sëñ Xaasim mboolem ñu ne jumaa gi ak Ngañ yàlla gën leen a dëgëral te gën leen a taxaw te gën leen a sàmm te gën leen a aar bokk yi nga xamante ni noo ngi fiy jullisee bokk bokk di taxaw it liggéey bi seenum liggéey gis nañ ko seenum taxawaay gis nañ ko noo ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm bu baax ndax seen jëf ji ñu jëf di ko jëmale ci liggéey bi mënoon nañ koo jëf di ko jëmale feneen ndax nit képp ku jëmalewul sa jëf ci yàlla it faw nga jëmale sa jëf feneen du lu mën a ñàkk mukk yàlla dafa dogal bi ma jógee fii dem ci biti bokki taalibe yi hôtel bi ma jëlal seer lool ma ni leen déedéet waaye nag ñu tegal ma ca loo xamante ni wenn lay wu ma ca tegit ma it amatuma ko ndax ñu ne ma sëñ bi am na ñoo xamante ni dañuy jóge Dakar si day am dañuy jël billet avion bu seer ñëw fi jël hôtel yu gën a seer yi ñu yii ñu la jëlal te am ko képp moo leen fi indi te yow yaa ñu génn ca loolee nekkoon Bercy boobee ñooñee di nekk lu ñu am ca lañ koy jeexal kon nit ki fu bu joxewut fii tamit joxe fii rek ku xëyut ci àllarbay ci àllarbay Moussa àllar di àllarbay Moussa dem ca dibéeri Firxawna rek loolu mooy adduna àdduna mu ku fi nekk di yëngu faw sa jëmm ji di yëngu faaw li nga amit nga di ko joxe yàllante nag ngay yëngu ci lu neex yàlla ak lu yàlla gërëm yàllante ngay joxe fu yàlla gërëm ak ci lu yàlla gërëm kon nag yàlla na leen yàlla fay jëf ji gis nañ ko bu baax sant nañ leen bu baax liggéey bi it gis ngeen ni mel kon noo ngi ñaan ñëpp gën cee jàpp gën cee taxaw tey ñaanal ñi ci taxaw ñëpp ndax am na ci ñoo xamante ni tey facture bi facture courant bi saa su dikkee ñoo koy fay kenn ku ci nekk ak lam ca gàdd ak lam ca warlu weeru dee kenn ku ci ne ma ngay seet lam ca man mu di ko ci def ngir jëmm yàlla yàlla mi ngay xamante ni ko amuk pay la yàlla na leen yàlla fay maa ngi ñaan képp ku fi teew yàlla jéggal ko ba faw te bañ a xool ci moom dara dara dara dara dara dara dara dara ci ay jëfam lu may jéggal ko te bañ a xool dara rek yàlla yërëm ko te bañ a xool dara rek yàlla saxal sunu ànd te rafetal ko te lépp yi di njariñal lislaam ci keppaaru Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul yàlla na nu yàlla bokk defal mujj gu rafet kenn ku ci nekk la muy ragal adduna ak alaxira yàlla bu mu ca gis dara yàlla bu mu ca dégg dara moo ko njabootam kenn ku ci nekk la mu bëgg ci boppam bëgg ko ci ak njabootam yàlla na ko ci suñu borom defal lu kawe njortam kenn ku ci nekk la ragal ci boppam ragal ko ci njabootam yàlla na ko ko yàlla dàqal ba faw faw faw faw faw kenn ku ci nekk daal lay sa bëgg yow xam nga ko yàlla mi nga xamante ni nag aajo ju faju moo ko faj yàlla na yàlla faj suñu aajo te jàpp ndal fajin wax defal nu mujj gu rafet ci mbaxam ak yermandem ci daraja yonnati bi sallallahu alayhi wasallam, sallam ci tawfeexi sëriñ tuba xaadima rasul Assalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kon barke luy jere jeuf mbake ya ngeen fi yag lol tànd ak wér yaa ngeen fi yàgg lool tànd ak wér ok bil أمري nira bil khadir al hafu Shagam مقدرا لي فإني سائم وهب لي صلاحا وهب لي توخا ونور جناني وزدني هلوم وهب لي نجاة وزدني هدى وأصلح أمور وزدني نعيم واخرج يوبي وزدني على وابره سخامي وافرق مهلوكا ولا تفدحني بكوني هل المصطفى وسلم سلاما عليه يدوم وسلم صلاة على المصطفى وسلم